sa maam dafa ne takraarul fawaatixi mubtilun li duwaay benn toogaay nga jàng ca fatiha jàngaat ca fatiha jàngaat ca fatiha mën na yàq ñaan mel na danga ko laaj lu tax mu ne la ndax benn fatiha dafa doy kooku mooy benn bi ci topp itam mooy xam naa am nañ fi leçon leçon yu intéressant ñu ngi lay gërëm si Moustapha di la sant di yàgg di ñaan yàlla mu yàggal sa taxawaay di ñaan yàlla itam sa yaakaaru bàyyi ak sa yaakaaru jur ñu bañ tas ci yow bu du woon cat dañu mën xaabaabal wax wante cat dafa sew waaye yal na la yàlla fay sëñ Babacar Njaay yow itam ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ndax li ñu neex ci yow mooy ànd gi nga ànd ak taalibe yi nekk taalibe ci seen biir te sa maam loolu la bëggoon te yonent ba la wax bu la ma juree wala wësee ñu jur la te amuloo yar amuloo teggin amuloo xam-xam wàccewoo sa bopp soxlawul ñu lay wooyee shérif te yonent ba la ko wax kon njabootu boppam waxi noppi ku yëkkati sa mbagg bokkuloo nekk taalibe comme yow nii nga nekk taalibe ci seen biir loolu rek saf taalibe yi moo ñu saf ñun ñu di seen way jur su ngeen meloon na neen ñu jàpp suñu ñàmp waaye alhamdulilah rabbi alamin muy yow Moustapha muy moom ba ba seen comportement des bii comportement seen maam Cheikh seen Haj Malik nekk taalibe rek moo ko saf gannaaw loolu moo jur ñëpp nee na El Hadj Bachirou Niang moo ko wax tàllal loxo sëñ kër si ni ko dama bëgg nekk taalibe mu nekk négal ma nettali la sa baay Yuusufa Ndooy bi mu tolloo fii wax loolu Cheikh Seydi Hadj Malick lu ko Cheikh Seydi Hadj wax daf mu ni waaw nijaay mu ni ko def ni ko dama bëgg nekk taalibe rek mu ni ko tey nga ñaan yàlla nekk doom soo nekkee doom am avantage yu taalibe am avantage yu doom kon yéen ñii Cheikh Seydi Hadj Malick leen jur su ngeen xeebolee seen bopp ndax moo ko wax joxe ñaaru loxo nag xëy na rafet na neex na waaye waxu seen Hajj Maalik Gay yi dëgg la nee nañ yéen ñëpp moo leen jur pas-pas rek moo ko amal solo laneen intéressé wu ko loolu fu ñu toll di leen ko wax di leen encouragé ci loolu seen maam sax seen Hajj Maalik wax na góor gi Yuusufa Jóob ni ko seen lëf kii day ngeen tuddee diine jàppewuma ko kersa fit laa ko jàppee fit fitam googu moo tax mu wax loolu ci yonent bi te wax na leen neen moom dara wuñu ko du julli du koor lu aj màkk ga du dara walay sa li amalul alqaaka yaa amali si wal mahabbati wa taadimi wa salami leen daal wóor na ko sopp gi mu sopp xam leneen nag wóoru ko waaye nag wax na la mu wax ci yonent bi mu diree ko ci njabootam kon ñu ngi leen di sant ñu ngi sant sañ Moustapha ñi ngay yem foofu ndax yonent bi moo tere xaabaabal ci julli ci julli waxtuma laak nag ci toogaay bu mën doon ndax waxtaanam wuréy wa ak Abdullahi ibnu Mas'ud baatu fal yu xafif moo fa jub kon nag ñaar yooyu yëpp tax na suñu waxatee laneen rek wax di yàqu moo tax ñuy gàttal foofu di sant bu baax